awuzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñu leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel di leen balax bu baax di lu ànd bi ngeen ànd ak seen chaîne bi di alquran karim zikr wa shifa ñu dellusiwaat ak yéen tey ci seen firi gént ñëw ci bunt bu am solo mu dellu ci gis ki nga xam ne moom ngay bëgganteel wala boo ki ngay labat am na vidéo bi ñu ci jotoon def laaj yi ci ñëwaat bari na lool lool lool lool waaye nag comme soxlay nit ñi la ah <laughs> ñu wax ko te gént firi gént lañu wax nit ñi dañ koy gént daan ci daan ko firi incha allah ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné te partagé ku am laaj ñu ngi ngir yàlla ñu ngi koy ñaanat ku am laaj demal ci page bi nga dem recherche seet ñu gént ñu ngi ci cent ñu ngi ci cent et quelques épisodes boo fa gisul li nga laaj nga ñëw fii nga envoyé message vocal encore ngir yàlla message vocal te bañ a bind woote ñu ngi koy ñaan ku envoyé message encore ñu ngi lay bàyyi ñaante nga taaxirlu boo toogee deux jours tontuwul la nga doog a wàccee message mais boo messager ci suuf si mun guddi laay toog tontu ñëpp suñ la tontoo nga wàcce waat ñeneen wàccee waat dafay jaxase liggéey bi ku am vocal la vocal bàyyi incha allah te xam ne yàgg-yàgg dina la tontu suñ la tontuwul na nga toog ba ñaari ñaari fan gën ngaa bari du ca yegg. wàcce waatal vocal bi incha allah danañ a tontu parce que ñii audio yi dafay bari trop trop laaj yi bari na lool lool léegi ni ma ko tëralee man ci bëgg a tontu sooy wàcce waat rek dangay perturbé li may liggéey ñu ko koy ñaan nit kenn bañ a woote te envoyé vocal bañ a bind te ku bind envoyé itam nga taaxirlu. Euh, mënuma di jël appel ñuy woote ñëpp ñëpp ñëpp wax dëgg ñu ngi leen di ñaanal daal ñu dimbali ci loolu ñun suñu gën kàttan danañ ko def kon li ngeen di soxla rek danañ ko indi ku laaj def ko incha allah euh, tey gi wax naa ko bunt bu am solo la mu dellu ci gént gis ki ngay bëgganteel wala ki ngay labat moo xam góor wala jigéen nga gis ko ci gént am na vidéo bi fi jaaroon da ngay njëkk jàpp laaj bi jaar na fii. bu fekkee danga gént gis ki nga xam ne danga nekk ak moom nga gént gis ko mu mer moo xam mu mere la moo xam ni ngeen xuloo ci biir gént am ku góor ki bu ko géntee ak ku jigéen ku bu lii nag maa jigéen bu amagul borom kër wala góor goo ne am nga am nga soxna waaye am na keneen koy bëgg mën nga ciy dugg jigéen ku nekk ci néegu sëy bokk ci maanaam ki ngay bëgganteel wala ki ngay labat gis ko ci gént nga gis ko ci melakaan bu doy waar mu mer wala yu mer lan lan lay firi li muy firi mooy ay muskila maanaam ay problème dana am seen diggante cosaanu problème yi dina nekk ci famille bi wala ci xarit yi wala ci dëkk dëkkandoo yi maanaam benn seen ay famille mën naa am ñàkk d'accord am ba mbir mi am problème wala ci xarit yi am ñu jaxase wala ñu def erreur ba réeroo am seen diggante te da nga gént ki ngay bëgg moo xam ko jigéen ki moo xam ko góor ki ngay bëgganteel nga gént gis ko ci melokaanu ku mer wala ngeen xuloo loolu lay firi bu fekkee nag contraire bi daa am maanaam gis nga ko ci melokaan boo xam ne melokaan bu rafet la comme ni nit correcté mu mel noonu ñu wan la ko si gént wala ñu wan la ko ci bu gën a rafet ni nga ko xamee mu sol yére yu rafet ko kazalik ko noonu delluwul ci seen relation kese en tout cas mën naa nekk xibaar bu neex boo xam ne danga ko jot yow ko gént yow ku góor ki yaa ko gént wala ku jigéen ki gént nga nga yu dox sa mu bëggee dox sa diggante nga gis ko ci gént ci melokaan bu rafet mu sol yére yu rafet wala ci melokaanam bi nga ko xamee gis ko ci gént waxoon naa ci vidéo yu ko gis ci gént mu ñëw seen kër wala nga gis kenn ci famille moom loolu nan lay firi sëy dañ dox seen diggante lay firi waaye bu dee nii nag moom nga gis rek ñu wan ko ci melokaan bu solo daan firi xibaar bu neex boo xam ne danga ko jot balaa yàgg incha allah waaw salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax di leen bal wax di lu ànd beeg yéen dañ leen di présenté rek ñaari sangat yu baax a baax lool incha allah danañ koy faral di defar di ko joxe te njëg gi itam nekkul lu diis lool danañ ko def di ci dimbale ak di ci jàppale jaamu yàlla yi bii sangat la boo xam ne képp koo xam ne danga soxla ubbeeku ci sa wàllu liggéey wala nga soxla bayree wala jigéen nga boo xam ne da nga yéex a sëy bëgg yàlla may la borom kër incha allah te bëgg wala nga bëgg bàyyi ci sa wàllu liggéey wala wërsëg yokku mën nga jokkoo ñun allah gàllaaj la bu baax baax sangat la daal boo xam ne baax yi foo ko app passé na foofu. incha allah képp boo xam ne yittewu nga ko rek mën nga jokkoo ñun ci numéro whatsapp bi incha allah danañ fexe ba nga yónnee jot ko ak foo ma nekk ci àdduna bi. am nañ ñu ñuy jëflanteel ñoo xam ne mën nañ la ko indi foofu bu soobee yàlla te njëg gi itam taxu ko diis lool ñoo koy def di ci jàppale ak euh, jaamu yàlla yi ak ñi nga xam ne ñooy séq ak ñu incha allah bu dee bii nag dafa bari ci nit ñoo xam ne seen gàllankoor ñaar la benn mu nekk cat benn mu nekk euh, liggéey léeg mu nekk rab wala mu nekk seytaane wala mu nekk ay feebar yoo xam ne yooyu ñoo la koy tekk euh, saafara la boo xam ne Euh, ci alxuraan lañ ko liggéey waaye mu ànd ak lenn ci suñu euh, rend yi mu nekk loo xam ne dana dindi cat ci diir bu gàtt dana di itam dindi rab ak seytaane ak lépp loo xam ne gàllankoor la ci yow wala liggéey la lu la def incha allah boo jëfandikoo yàlla mën na la ko dindi ci mu gën a gaawee bu ko defee ñaari bouteille itam bu la neexee mën nga ko jëndoo bii dana la raxasal sa yaram lépp lu fa nekk ci lu lay gàllankoor dina dañ bii dana la ubbi incha allah ñu ngi leen di ñaan képp koo xam ne soxla ko rek mën nga jokkoo ñun ci numéro yi te njëg yi diisul diisaay googu wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. kon ñaareel bi ñaareel bi ndox moo nekk boobu euh, kii nag laaj la neen dafa gént ki muy bëgganteel mu gis ko ci gént mel ne ko daa am lu mu séq ak moom ci wàllu sëy waaye kanam gi mu gis dëgg-dëgg ci biir gént gi moom. jàpp ne ni kii mooy ki may bëgganteel waaye kanam ji muy gis ci gént du kanam kooku laaj bi laaj ñëw gis nga foo ko xibaar bu neex la ci ko ngeen lan lay firi bu dee jigéen wala bu dee kooku jàppal ne sëy dana am seen diggante balaa yàgg ci diir bu gàtt te gàtt gàtt gàtt kooku gént bu baax baax la incha nag sa borom kër di la woo ci biir nelaw yaa ngi sant daal mu lay woo maan bàll ma ko sa borom kër laa dama jum ki ngay bëgganteel nga gént mu di la woo yaa ngi ciy nelaw yaa ngi dégg sawtam maanaam baatam di la woo di tudd sa tur lan lay firi mooy ñàkk am kóolute bu dëgër ci yow mi nga xam ne yaa ko yaa ko gént maanaam sa confiance ci kay bëgganteel daal boo tàmbalee da xam ne bari dafa am dafa des wóoluwoo ko mu jeex daal ci gàttal loolu lay faral di firi euh, kii laaj laaj la bu fi ñëw euh, voilà ki nee na dafa gént mu gis ki nga xam ne moom lay bëgganteel mu gis ko muy waxtaan wala muy déewante ak ka nga xam ne moom la daan njëkk a sëy wala moom daan njëkk a bëgganteel xamoon nga waa ji ne daa kii la doon bëgganteel seen diggante jeex na léegi yaa ngi bëggante ak moom loolu doon seen diggante nga gis ci gént ñoom ñaar nii waxtaan wala ñuy déeyante wala yu mel noonu lan lay firi li muy firi mooy bee boo waaj nga xam ne ñoom ñaar dana delluwaat te sa diggante ak moom dana dana yàqu kooku moom du gént bu neex ci aju gént ji moo xam ko góor moo xam ko jigéen yéen ñaar ku ko ci gént jàppal ne loolu lay fii kii nga doon bëgganteel am na ki ngay bëgganteel am na ku mu daan njëkk a bëgganteel nga gis leen ñoom ñaar ci gént ñuy waxante xamal ni delluwaat dina am seen diggante te yow mën naa am euh, tàqalikoo dina dox seen diggante euh, li ñuy wax nag toujours lu sérieux la wax waxuñ pour ay jaaxaan ay fo wala yooyu man maa ngi ci ñaar ñuy bëggante am yéene sëy wax farata mu nekk lu sérieux loo xam ne ay foox la ak ay caaxaan nag euh, xajuñu ci xaju ci fii daal duñ ci wax moom ok kon nag loolu moo woon ci ñiy bëggante ci jigéen waaye kii nag jigéen la dafa nekk ci néegu sëy bari na laaj yuñ ci bari am lool lool xam naa li ko jigéen ñi jënt bari na koo daan bëgganteel dem ba seen diggante jeex ba nga am bonoon borom kër sëy laaj yi ci am moom bari na lool lool nga di ko gis ci gént ñaari la mën a firi ñaari maanaa la am maanaa bu njëkk bi benn yow sa sa boroom kër taxawu bi mu la war a taxawu maanaam àq bi war ci yow en jigéen buy sëy loola manqué na danay faral di firi loolu bu baax a baax a baax a baax beneen bi danay faral di firi ki nga nekkaloon muy. mu bari lu lay lu mu lu mu lay xalaat lool mën na nekk lool waaye mën na nekk yow tamit xam nga léeg-léeg nit su fekkee dafa am fu mu jaar wala lu mu def wala lu mu seqal nit psychologiquement des fois di ko faral di mën na nekk boobu waaye bi ëpp lu muy nekk daal te gën ci am solo mooy ñàkk am dal euh, tranquille ci sa wàllu sëy wala sa borom kër àq yi wala ci yow mu ñàkk ko def mu jeex danay faral di nekk loolu Euh, du nag forcément loolu la waaye ciy gént rek la ñuy wax wax yi dafa am foyam nekkul lépp loolu la ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné te partagé ku am laaj mën nga jaar fi ñu jaar wa ma zalika alallaahi bi aziz wa salaamu aleykum wa wa barakatuh